fekkente ni li mu wax gëm nañ ko te gëm nañ ko kenn mënuñu tere ñu wax li ñu war a wax pour défendre constitution Sénégal parce que jàpp nañu ku war a jiite réewum Sénégal da nga war a moote ak topp ak euh, kii constitution Sénégal voilà loolu rek moo tax la ñu bañaloon président Macky Sall ci article 27 de la constitution deuxième mandat mm-hmm. moom la ñuy bañal keneen ku mu munta doon ci leneen lu mu munta doon lu constitution bi mayewul wala tere ko parce que mënoo ne da ngay jiitam réew soldaar yi ñu dem géej mhm. nga leen di yabal ñuy dem ay Niger <laughs> di xeexi walla bu leen bëgg leen yabal Mali ñu fay joxe seen bakkan jox leen ci géej gi di leen jox ordre ñuy obéir li la ko may mooy constitution bi te ñoom sañu ñu violer nga ne yow damay violer constitution bi amul problème bu keneen violer constitution bi tamit ma gis ko muy violer loolu la wax ci tuitement ma yëg ko sama yoon newu ci et il prétend diriger le pays pour veiller sur la constitution et la bonne application de la constitution alors loolu day na waar ah alors xam nga débat bi débat bi foofu la war a nekk foofu la war a nekk li co li li li li li li euh, trois français wax dafa leer naññ moo tax ñu defal ko décret rupture de lien d'allégeance décret boobu mënul rétroactif maanaam c'est pas parce que indi nga décret le 16 avril le 16 janvier mhm. que war na mën a jël effet 23 décembre 2023 bi nga xam ne ci la ñu ni dossier yi war nañ ko motal ku indi après minuit ce dossier lu ci manqué baaxut donc décret wu 16 dama bëgg sénégalais xam loolu. alors c'est, c'est, décret, c'est malheureusement pas aux sénégalais d'en juger. décret wu justice moom mooy juger. le conseil constitutionnel awma ci sañ-sañu wax soxlawul nga ma fiy laaj. non non mais je veux dire bàyyi ma wax sama <laughs> xalaat. non mais je veux dire yaa ngi sénégalais juger après bu ma paree mais sénégalais même bu ñu juger sénégalais juger dama ne dama bëgg sénégalais yi xam. nee naa Aïcha tey yow moom dafa mel ni <laughs> da ngay waxtaan ak maître. tin ba mu doy waxtaan ak gars yi ba mu doy bañ bañ ma kii. dama euh, euh, on pose juste des questions pour que sénégalais ah, yi ñuy seetaan ñu a comprendre effectivement et quand on prépare une émission effectivement on appelle tout le monde pour essayer de comprendre comme ni ñu woowee sa ay service woo service keneen ak keneen ak keneen. def suñu ay euh, recoupement. xool comment ça se ma dagg di ma ne non c'est pas aux sénégalais d'en juger sénégalais yi ñoom ñooy juge en dernier est-ce que c'est aux sénégalais d'en juger juger ñun gëm nañu li leen jox doy na te ñoom xam nañu droit francais lañ leen bindal ci recours bi ci point yi ngay wax nii jox nañ leen ban article moo pertinent <laughs> parce que xam nañu ni dafa am cas de figure yu bëri wax nañ leen cas bu njëkk bi nga wax wax mu ngi ci suñu recours mhm. que cas boobu nii lay demee du boobu mooy appliqué kaa bii beneen bi nii lay demee bii mooy appliqué wu bul jàpp ni ñu nit dañu dañu ay cuune lañ de. <laughs> naturellement ku bëgg a diriger Sénégal am na yenn yoo donc dama ni sénégale yi dama bëgg ñu xam. Mhm. parce que am na benn communication bu bëri bu jàll ci am nañu décret am décret bi le 16 janvier 2024 lañ ko def ku ku ñàkk a xam loi ñàkk xam loi xam na ni loi mënul rétroactif maanaam décret bu ñu jël le 16 janvier 2024 mënul soppi ab dossier. wala joyanti ab dossier boo xam ne bañ koy déposé le vingt trois vingt six décembre deux mille vingt trois dafa dëngoon ba liste conseil constitutionnel taxaw list bi boo ko neewoon attention naa la indil beneen décret boo xam ne ñëwagul mu ngi ci yoon bi. Mhm. baaxut bu fekkoon te ni tamit loolu ma conclure ci point boobu mu jeex. bu te tamit dénoncé euh, euh, déclaration bi rek doy na di nga ne def naa sama déclaration tel à telle date. mu ngi nii la preuve que j'ai déposé que déposé naa maintenant article sangam ak sangam bi nga xam ne moom moo nekk sama cas nee na lii doy na parce que tontu guñ ma. d'accord alors euh, l'autre question c'est lan moo tax peut-être euh, vous l'avez dit vous l'avez soutenu et euh, je pense que topp nañ saa écrit ba xam nga ne euh, justement c'est par rapport à la démocratie ak état de droit moom moo tax nga soulever cette question vous avez aussi entendu la réponse de Karim Wade

na ñëpp bokk sans condition de loi dans le respect des règles de loi naturellement na ñëpp bokk élection inclusive dans le cadre du respect des règles de loi encore que man F24 mun nañu ma def en minorité foofu néew ma c'est le dama ne mun mun nañu ànd ci assemblée boo xam ne majorité bi nee na lii man gisuma ci sama bopp du ma trait bu ma génnee wax ni wan de lii mooy sama xalaat ci mbir mi d'accord mais ma fàttali F24 lu ko tax a jóg du ko njëkkoon tax a jóg c'est l'article 27 de la constitution touche pas à ma constitution. donc F24. mënul bañ ñu wax ci article F28. maintenant question d'interpellation lay doon peut-être. Mhm. ñi d'accord nañ ci lii ñi d'accord nañ ci lii benn. ñaar ñoom wax dañoo la gën a xam ne man duma nitu kenn bañ may bañ may njëkk a wax ni que man <laughs> nitu Macky Sall laa Macky Sall moom mooy c'était en 2007. quand je m'opposais ci démantèlement wu ASECNA bi ak ci démantèlement wu teeru aéroport bi naan mbokk Macky na nitu Macky Sall gis ngeen fu ma maak Macky fu mu mujj nga ne lan Amadou Ba. oui ku ma nekk sa ginnaaw. ok Ba ba muy ñëw APR fekk na ñun ñu créé APR ba gagné bu ma nanguwul jàll man nekk pion Macky Sall pour de question liées à la loi. du pion Macky Sall laay dekk pion dégg nga wax ji mais ñu dégg nga wax ñu ma bamtuwaat ko man mhm. nanguwuma nekk pion Macky Sall du ma nekk pion kenn je suis libre day nekk pion pion Macky Sall bu ma bëggoon ay calcul yooyu APR laay toog responsable des cadres du parti bu lu Macky lu lu Amadou Ba laaj ma laaj ko te bu boobaa tamit parti bi dina gën a xar ah parce que bu fekkoon ni ku mel ni ab lay Abdoulaye Daouda jàlloo moo dem jusqu'au bout problème dina am parce que moom il a la légitimité historique ci ñu bokk ci ñu sos APR def ci lu ne naa topp ci ginnaaw ñoo xam ne ba ñuy xeex justement euh, kooku nga wax mais gars yi génération du concret lañ ko doon jiiñ en 2012 Amadou Ba ñun dinañ topp ñoo xam ne <laughs> ba ñuy xeex ñun di def M m nekk ci mbedd mi di xeex di risquer nos carrières dañ topp ci ginnaaw ñoo xam ne ñoom dañ toog tranquillement ba affaire yu ñor ñu ñu récupérer ko benn mhm. ñaar xam nga pion mooy xam lan mooy pion kuy wure mooy xam lan mooy wure man du ma nitu Qatar du ma nitu France bañ may defal décret de dernière minute man sénégalais laa sénégalais combat bu sénégalais mu sa xeex xeex naa ko jaral na ma lu ne gaa yu ñuy ne cofet jël la tugal la ci ay avion ay procureur monde entier bi ñaata nit ñoo fi am ay problème politique. <laughs> Euh, non non non bay ma ma eggale da nga question ba ñaata nit ñoo fi am problème politique dans le monde. oui ñu jël la minuit vingt quatre heures minuit. defal la ay kayit yóbbu la Qatar làq la fa. est-ce que c'est est-ce que ci ci ci propre gréwam lañ ko defee loolu yëpp. man mënu kenn ñu mënu ma ko def bàyyam Ablaye Wade kenn mënu ko tëj. Omar Sarr bañ ko bëggee tëj fii ne la doo génn réew mi dafa jël gaal traversé ñëwaat ndagam xon Branco moo mun a làqatu ñu fii ci Sénégal man kenn mënuma tëj fenn ci monde